vraiment ce point de presse qui, j'espère, a répondu à vos attentes, puisque je pense que si un point de presse ne s'étale pas sur des durées très longues, cela veut dire que les choses sont claires. Et vous aurez aussi, comme l'a si bien dit le président, euh, l'occasion d'avoir dans vos boîtes mail vraiment l'intégralité des documents qui ont été présentés. Mais avant de clôturer, comme je le disais, quand même, il faudrait, et ça vraiment je salue aussi cette vision du sous-comité qui réfléchit dès à présent sur euh, la relance durable des activités de notre secteur. Et je pense que ça, c'est la quintessence même de ce programme de résilience économique et sociale que l'État a mis en place. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous arrêter à cette aide urgence, à ce soutien d'urgence, à ce soutien, c'est vrai, qui va régler des problèmes socio-professionnels et économiques. Et c'est ça que le président a compris d'abord à Mais le plus important, c'est redémarrer, redémarrer pour vraiment limiter les impacts négatifs dans notre secteur. Et là-dessus, tout un plan va être développé. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de cette rencontre, mais nous sommes en train d'initier de, des réflexions pour voir durant ces six mois à venir comment nous remettre vraiment véritablement au travail, relancer la machine économique du cinéma, parce que vous savez tous que nous sommes un cinéma qui est en pleine relance, en pleine reconstruction. Et c'est vrai, cette crise a montré notre vulnérabilité, notre fragilité. Et de cette fragilité, heureusement, nous avons eu des impacts positifs. Je salue premièrement cette solidarité de corps, le fait que des professionnels de différentes filières se mettent ensemble pour des consensus. Ça, c'est un premier pas qu'il faut davantage, vraiment, comme on dit, consolider et même accroître. C'est pourquoi, à chaque fois que nous parlions à la direction de de la cinématographie, nous appelons à des organisations professionnelles fortes. Au sortir de cette situation que nous avons vécue, il en sortira des organisations professionnelles fortes, un secteur du cinéma beaucoup plus organisé. Heureusement, le cinéma a la chance de ne pas subir les contre-coups d'autres secteurs qui ne savaient pas comment identifier leurs principaux acteurs. Mais le cinéma, heureusement, on a des référentiels objectifs que constitue la carte professionnelle, la carte professionnelle a été déterminante dans nos choix. C'est pour vous dire qu'un secteur, qu'un sous-secteur doit être organisé aussi. Là-dessus, vraiment, l'État, les professionnels, en leur temps, ont mis des, des, des structures qui nous ont servi. Et pour bientôt, et les semaines à venir ou les mois à venir, nous allons progressivement mettre ce qu'on appelle le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel. Et voici un instrument qui va nous permettre de mesurer que ce soit les emplois créés dans le secteur, les déclarations des sociétés qui sont véritablement dans le secteur, et surtout comment notre secteur se comporte sur le plan économique, sur le plan professionnel. C'est un mécanisme très important et je pense que nous avons commencé à poser ses bases avec la, la nomination d'un juriste pour euh, mettre en œuvre euh, ce dispositif. C'est pour vous dire que voilà, le Covid ne nous a pas permis de rester les bras croisés, mais de réfléchir pour une meilleure restructuration, une meilleure organisation de notre secteur cinématographique. Et nous remercions le ministre d'avoir eu aussi une approche inclusive dès qu'on a mis, que le président a pris cette mesure de mettre 3 milliards, de donner des instructions fermes pour dire que tout ce qui va être fait, il faudrait que ce soit dans la plus grande transparence, dans la plus grande inclusion, c'est-à-dire que les différents acteurs soient vraiment impliqués et soient au cœur même du dispositif. C'est en cela que des sous-comités ont été créés par Monsieur le ministre de la Culture. Il y a eu un arrêté qui instituait la création des sous-secteurs, dont le nôtre, le sous-secteur, le sous-comité, autant pour moi, du cinéma et de l'audiovisuel, qui regroupe vraiment, comme on dit, toutes les filières. Je pense que tout à l'heure, le président, M. Khalilou Ndiaye, il reviendra pour donner peut-être euh, s'il le veut, la composition de ce comité et vous verrez comment nous avons aussi pu ratisser large sur le choix des personnes qui constituent ce comité, ce sous-comité euh, cinéma et audiovisuel créatif. Je voudrais vraiment, au nom du ministre de la Culture, remercier ses membres de ce sous-comité. Deux semaines durant, presque chaque jour et jusqu'à présent et ce n'est même pas terminé encore parce que euh, nous ne sommes pas encore à la fin de nos, de nos travaux puisqu'il faut redistribuer maintenant l'argent qui a été mis à notre disposition. Donc ce comité, ces membres du comité, vraiment se sont investis, se sont sacrifiés. Je me rappelle, les journées ont été très longues, même en, en des moments de couvre-feu, d'état d'urgence, Les gens étaient là jusqu'à 22 heures, voire certains ont même passé les nuits, des nuits blanches, pour vraiment hâter ce processus que nous avons en place et qui vous sera Je tiens vraiment à exprimer toute ma gratitude aussi en tant que directeur de la cinématographie par rapport à cet élan de générosité, parce que d'aucuns se sont pour la communauté euh, au Sénégal. C'est ce qui fait la grandeur aussi d'une cinématographie. En tout cas, soyez-en remerciés, chers membres du sous-comité, hein, pour euh, tous ces efforts consentis. Alors, pour partager ce point de presse, nous avons Monsieur le Président du sous-comité cinéma et audiovisuel créatif, Monsieur Khalilou Ndiaye, donc, euh, qui est à ma droite, chez vous peut-être il sera à votre gauche, et monsieur Oumar Sall, qui est le rapporteur de ce sous-comité. Alors je vais vous, le, les livrer, parce que ce sont eux qui auront la parole. Moi, je ne serai qu'un modérateur pour euh, qu'ils nous présente vraiment le fruit des travaux de sélection, de répartition

ko ñoo ko nasoon euh, mu doon seen li ñuy xam ni dañ ko yaakaar ma xamal ko ni kat dëgg la dafa am loo xam ni si si entreprise la jóge ndax état daf ñu laaj nan ngeen nan leen Covid bi daane c'est-à-dire nan la daane seen activité ndaxam am yéen ngi yëngu wala yënguwu leen ak lan ngeen xam ni moom ngeen ñàkk ci jamono buñ ñu toll ñu tontu ci loolu mais loolu entreprise yi la dafa am. Euh, aussi techniciens yi ñi nga xam ne dañ leen tuddee les intermittents du spectacle ñoo xam ni du spectacle des intermittents ñi nga xam ne ay acteurs lañu ñoom damay wax ni bu ñuy defar film wala ñuy liggéey ñoom ñooy ciment bi parce que ñoom ñoo nuy ñoo nuy permettre li ñu bëgg jëmmal walla ñu bëgg taxawal ñu taxawal ko kon ndimbal boobu nga xam ni président daf ñu ko jox damay wax ni toujours il n'était pas obligé mënoon na ko bañ a def Euh, dañ koy profito même gërëm ko si sant ko parce que dafa fekki li nga xam ni mooy xalaatam si wàllu lu ñuy tuddee politique euh, des industries culturelles euh, bu fekkee ni dafa am jamono entreprise sooxe mu am loi loi de résilience économique nga ni ah kon du ma bàyyi ginnaaw secteur u cinéma wala secteur audiovisuel créatif donc bàyyi nañu xel mais bu ñu bàyyi xel bàyyi na xel ci liggéeykat yi nekk suñu ginnaaw non seulement liggéeykat yi nekk suñu ginnaaw mais technicien yi nga xam ni ñoom ñooy taxawal ni muy fekki aussi li nga xam ni daf ko jëmbal ci PSM mooy le capital humain parce que tey boo dimbalee boo dimbalee ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar technicien mooy dëgëral nga capital humain euh, dëgëral nga aussi entreprise ba nga xam ni dañuy dugg ci beneen phase ndax lii euh, mooy nañ ñu soutenir pour entreprise bi bañ a sooxe liggéey bañ a sooxe mais buñ ci jógee dañuy waxtaan noonu ak suñu directeur euh, ñu koy gërëm di ko sant ak euh, ministre de la culture bi nga xam ni wane na ni ambassadeur bu bu bu kenn mënul fay la aussi ci doxalin bi mooy maanaam déglu ñu ñu ni ko ah ndimbal dëgg la atténuer suñuy problème dëgg la mais li nga xam ni moo ñu utile utile comme crise bu mën a nekk mooy relance mooy maanaam bi ñuy liggéey te fii mu nekk liggéey da daan jóge bitim réew si wàllu cinéma lu bëri bëri euh, film yi am doole yépp parce que day jóge bitim réew mais ñun ñu ni kon bëggoon nañu ñu xool si Fopica nan la ñuy def ba nga xam ni doole bi ak kattan bi dafay déparé si ñun ku ñuy fekk si nga fekk si ñu ñu am attention bu extraordinaire bu ministre mu nekkoon suñu ambassadeur jottali ko président de la république lan la ñu def ñu ni ah li ñu attenuer ñu atténuer mooy tey cinq cent millions yi nga xam ni dañ koy jox secteur cinéma ak audiovisuel créatif ñi ni bu ñu atténuer nan la ñuy def ñu ni ah am ngeen outil bu nga xam ni mu ngi fi muy FOPICA lépp dañ koy delloo président de la république parce que xalaatam la moom moom ci cinéma moo fi def gum ci alal lu kenn deful kooku dañ ko ci dañ koy remercier donc cinéma aussi ndam yi mu am fii yëpp ndam yi gën a rëy en tout cas ci jamono yu ñu toll dafa tombé ak réñam donc loolu yëpp dañ koy boole muy ngërëm loo xam ne suñu directeur lañ ko jox ñu koy gërëm moom tamit mu li ko ministre mu jottali ñu ko jël loi de finances rectificative yàggul pour jox ñu kàttan bu nekk ci biir FOPICA mooy maanaam dotewaat na FOPICA sécuriser na financement FOPICA bu nga xam ne bu ñu génnee ci lii rek war nañu mën a relancer suñu économie cinéma mu dem loolu presque mu ngi fi ndax euh, yàggu defe naa ni mooy dugg na ci compte bu boobaa ñun suñu acteurs yi nga xam ne ñoo fi nekk muy technicien muy société yi ñi nekk ci corporation bi yëpp dañuy ànd xalaat pour xool nan la ñuy def ci cadre budget programme yi euh, maanaam nangami ñaata long métrage la ñu mën a joxe ñaata court métrage ñaata documentaire ñi distribution et cetera ku nekk wax sa xalaat ñi tëgg ko muy programme relance bu nga xam ni day am doole mu fekki aussi ñoom lañuy ñuy nasar seen lettre de politique sectorielle li ñuy wax budget programme bu nga xam ni réerewu leen mbir mi dugg na ci Sénégal depuis je crois daaw kon euh, loolu yëpp mooy wane ni en tout cas pour l'instant yoon wi leer na maanaam mën nañu départ pour liggéey ndax jox nañu tey outils yi nga xam ni ak moyens yi nga xam ni war nañ ci mën a sukkandiku pour soppali secteur u cinéma xam ngeen ni secteur la ba nga xam ne tey majorité jeunesse sénégalaise fa lay liggéeyee comme ni ngeen ko gisee bitim réew aussi euh, dëkk yi mag yépp euh, emploi yi dul jeex la secteur bi yor kon dooleel secteur bi mooy dooleel jeunesse bi mooy dooleel emploi waaye ci biir aussi cinéma Sénégal dafa am histoire dafa am ay référence dafa am ñoo xam ne ñu ngi fi donc je pense que liggéey bi nga xam ne ñun def nañ ko ci comi euh, comité bi ñépp ku nekk sa cër jox na la ko bu nga xam ni mot na donc loolu yëpp buñ ko tënkee mooy wane ni en tout cas euh, li ñu doon laaj ñun am nañ ko euh, li ñu bëgg aussi pour ëllëgu cinéma bi ak doxal politique bi nga xam ne ñun moom la ñu yaakaar président aussi jiitu si donc je crois que loolu tey am nañ ko ba mën nañ ci sukkandiku pour pour pour départ donc loolu daal mooy mooy li nga xam ni mën naa ko tënk mu fekk ñun suñu kon la valeur utilité la valeur utilité de ce ci geste bi valeur utilité bi mooy non seulement dañ ko apprécier bu baax a baax mais valeur utilité bi mooy dooleel entreprise ci jamono bu metti suqali le capital humain téye ko euh, bu nga xam ni ñoom danañu mën taxaw ñu continuer doxal ci cadre relance bi comme ni ko économistes yu mag yépp théorisé euh, ni crise Euh, dina dina dimbali si kaw bu mu ñu permettre ñu xam fan la ñuy teg suñu tànk ëllëg te nee naa lépp demoon na ba mu des culture suñu culture rek la ñu dese woon xool leen ko bu baax a baax yépp lu ñu cloué woon au sol culture moo fi nekkoon maanaam et puis suñu génie créateur moo ñu may gis ngeen ni mu nga juddoo Wuhan mais bi mu ñëwee Sénégal ñun duñ ko wutal tur tudde ka mbas bu nga xam ni képp kuy sénégalais mën nga comprendre lan mooy lan mooy feebar boobu ak nan lay doxee joxuñu ko tur bu compliqué mais suñu turu dëkk lañ ko wutal jox ko ko di si dox kon maanaam culture euh, moo moom moo jiitu si développement mooy mujj si développement donc loolu aussi mooy lu ñuy gërëmee suñu suñu autorités yi di gërëm suñu directeur bi nga xam ni yàlla may na ko aussi mu xam secteur bi bu baax a baax xam filière bi bu baax a baax Euh, jàpp jàppale ñu aussi si doxalin bi ak liggéey bi ñu doon def ba tey ñu egsi si résultat bi di leen ko di leen ko jébbal di gërëm aussi ministre bi si taxawaayam di gërëm ñi ñu àndandoo woon ñëpp si liggéey bi di gërëm président bi di gërëm ñi nekkoon ci secteur bi donc di leen gërëm yéen tamit seen taxawaay ñoo ngi leen gërëm di leen sant.